noonu laa ko waxee ñu yor oto bi daal ne man bu ma nekkoon à la place du maire mais ces gens là dañ la war a sanctionner parce que deux personnes warut a mën a bloquer l' intérêt général d'une communauté te après ñooñu ñooy ci jël lépp xam ci sa kaw boobu constat la ñu def ñu dëkk ci emprise du tuyau gaz bi ak kër yi nekk ci biir tuyau gaz bi mais maire bi petit parce que emprise boobu ña ko moomoon fay nañ leen bu yàgg kon ni ko jaay ñoo fëgee ba pare ak ni ko jënd ba pare bëgg a jël loolu lépp la dugal ci sa biir sàkk te man fu ñu ko waxee damay taxaw di ko défendre te ñoom ñii ñi ma leen wax ma ne yéen ñi nga xamante ne tey jii ay acteurs yi leen euh, dem suuf di ko jaay monsieur le maire di leen def maanaam euh, euh, découpage boo xamante ne day respecté les normes ba mu ëllëgee.

te dara du yóbbu fekk kon grandeur la rek ak ndax ci sa kàddu jotale ci réew mi ci ku ànd ak yow ak ci ku àndut ak yow yàlla dogal na ko ba pare kooku loolu ah boo

mais jël li mu am bu boobaa day gën a digal ci fiiw poste de santé bu waaye mbaam bi muy jooy ay agent mais yóbbu nga fa ay agent madame yàgg suma nit la dañuy waxtaan parce que suma investigation la dem dama kat li ma doon jooy monsieur le maire def na ko mooy aw ma woon personnel de santé te yóbbu nga fa ay personnel de santé lenn dong laa xam ni moo def ci poste de santé bi te mënta ñàkk pour suñu ak sécurité poste de santé bi mooy gardien ci cahier de charge am ñu ngi koy sàkku pour ma jotaleen la ko ndax la gënoon a primordial muy ñu ko jàppale assisté ko def nga ko te ñun ku fi def ñu ne def na parce que mairie ak Bambilor ni mu toll amul budget bu extraordinaire boo xamante ni l'argent du maire dafa war a dugg ci biir kër yi pour joxe dépense maire bi li mu am mooy. defar loo xam ni dëkk bi yëpp dañ koy yokk muy marché muy hôpital muy stade par rapport à son budget di nga wax ñu muy gën a massifié wu nekk na au de la gën a war a mën a gañe kon tamit ñun mbàndiloor ci laay wax di ñaan tamit ci suñu doom yi nga xamante ni ñu ngi ci abri provisoire bi euh, donte du yow mais ci yow lañu mën a jaar pour que ñooñu mu nekk ci seen loxo ñu dimbali ñu parce que image boobu bu amee rek ñuy wax ñu nekk ci kaw bi dañ naan monsieur le maire te monsieur le maire nag yow éducation ñu mën a jóge ci loolu école am robinet ñu ngi jooy am collectif ñun ci boobu lancé la ñu bëgg am ñu defar Bambilor wutuñu doon mairie wutuñu doon benn responsable li ñu bëgg mooy base bi ñu njaboot bi bootu ci yow nañu gën a seralaat nekk ci nañu gën a xoolaat comportement yi duggaat ci biir base bi waxanteeg mbooloo mi parce que politiquement kii boo ko jëlee yoo koy jàng ci ko ñu defee Bambilor nga xam ne acteurs yi nekk yëpp fréquenté nañ ma naa leen te man je suis libre ci mooy wax dëgg kan nga fiy teg المتزوج منهم Okay. parce que yàlla na nga am allié yoo xam kenn ki sax bëggoon naa ñu teew Sadio. ñoo xamante ni tey jii sa njaboot bi nañu dem à la conquête pour reconquérir ñooñu. mu doon une base forte parce que ni ma ko waxee wax naa ko waaye ne ko fii ci Bambilor acteur yi ma fréquenté ndax Moustapha dama koy cité donte nekk fii parce que aw ma lu may nëb bi ñu ñëw suma kër ay briques laa ko jox mu toog bi muy bind mémoire am ko orienté ci lu bëri kon njaboot bi nga xamante ni tey jii muy la personne de Mamadou Diop Sall. keneen taxaw politique bi bu ma demee man bu ma la sañee conseil pour la mooy pour wala du ma sa adversaire du ma sa noonu mbay jox ma budget bi jox ma bi ma ne jox ko cinquante chaises mu defal la décharge dangay bind mu defal la décharge cinquante chaises al waaw may signal de charge bi cinquante chers bi sa loxo lañ ko teg cinquante chers bi moom wéeru ba nga xam ni Sadio ci lu ma fekkee moo am ay seede ci lu bari da koy dox jëmal ci jëm defaluma dara yow su ma dépense ko ndax bu sa akter politik di finek di ki ti pandi lor. Kan wawar waman an opte pou dwen don men, paske ben wawar fèk la pi. Mwen wakil re pi di ten. Don te separasyon de pouwar an menjeni banya anye atina an menjeni mwen di finek. Konten ten di dine, waman menyon mwen atahou. Si dem ala konket di lor, mwen yon kon menoun, mwen fèk ekrir di baz wabou, ba nga xamante ni daanaka sa bi ci gën a yokk muy benn bi ñaareel bi ñu ci bëri tey ci politique ci ëppul ci loo xam ne wutuma ci tuur ndax jayuma suma bopp li may wax bu dul dëgg waaye nii mën na koo wax ndax nag damaa yor sama cabinet consultant nekk suma biir di recevoir bàyyi suma biir que damay recevoir ba deux heures du matin ay kilifa ci réew mi keroog bi suma rakk di jënd terrain bi def ci teranga jooy dama la fa ay kilifa laay recevoir waaye tey bu ñu jëlee kat li ma leen wax du leen neex te xaaruma ci dara ñun daal li ñu ñëw mooy Bambilor jag te yow la fi ñu kon bépp action booy def pour Bambilor des ci kanam jàppal ni ñun bàyyi par ay acteurs lañu donc nag am nañu appartenance